sunu président de la république Bassirou Diakhar Diomaye fay son excellence quitté na ci peexi Sénégal wàqi fële ca Côte d'Ivoire foofee nag mu am lu mu fa naal naal boobee nag danañ ci dikk ci lu yaatu moom mi nga xam ne mooy notre cher président ñu gërëm ko sant ko ci taxawaay bi ci sénégalais yi commencement bi ñëpp a ngi koy gis loolee ngi tolloo lépp a ngi doon tawféex ma ziar leen bégg leen ànd beeg ñun am na solo gannaaw yëgle bii ñu yaatal xibaar yi. waaw sëñ Alaaji Malick xam nga li ci doy waar mooy gis nga butéel bii nii muy ndawee nga di ko xeeb ki koy jënd di ko xeeb mën naa defee moom lu mat 4 mois ndax lu ndaw rek nga ci utilisé gàncax lañ ko liggéeyee dañ ko garanti amul benn effet secondaire cinq jàpp cinq mille lay diire képp ku ko jënd sa kër dana neex jàmm ak salaam dana fa am kër moom alal doo nga yoru ko soxna alal doo nga yoru ko lu ñu garanti la lu wér gannaaw yëgle bu am solo boobee ñu yaatal xibaar yi moom président de la république ngeen gis ko noonu ci image yi nga xam ne mi ngi foofee ci aéroport aéroport na képp ku fa dem nag yaakaar naa ni jëloo oto waaye ak fafal naaw moom ngay jël fafal naaw googee nag euh, jël na ko moom président bala noo dikk ci ak départ ngeen gis ko tàggatoo googee moo wan gannaaw Sénégal tàllal leen loxo loole di wane ni mbégte mu am ci dëkk bii mu bàyyi tayit fu mu mën di dem Sénégal googee moo ko tax a jóg ca loolee lay yëngu tayit loolee daanaka rek moo ko ñor moom Bassirou Diomaye Faye àndanaa ko délégation boo xam ni euh, bu am solo la moom nag moo jiite délégation ba ndax mooy président bi Côte d'Ivoire nag dana fa dem bu fa demee ka koy dalal nag di président ba di Alassane Dramane euh, Ouattara loolee mi ngi ko def tey ji nga xam ni mi ngi tombeek euh, talaata Euh, bii euh, euh, nga xam ni moom la nu nekk tombeek juróom-ñaar ci ay fan ci weer wii nga xam ni moom la nu nekk chef d'état bi nag nga xam ne fi mu toll nii war na bari lu mu lijjanti diggante Sénégal ak Côte ndax ja xam ngeen ni Côte d'Ivoire la fay jógee di ñëw Sénégal bari na lool bari na banaana bari na pom bari na li nga xam ne daanaka moo jëm ci ay dénk di fàttali nii ba ci sama yóbbante bii ma lay yóbbante Bassirou Diakhar Diomaye fay ñi man a fexee ba mu jot ci Sénégal football Ligue bi nga xam ne am na ak cooxe ci équipe yu bari cooxe gi nag du wàllu football waaye danoo amul ay biis yu ñu demee yu bari ma ñaan la rek boo demee Côte d'Ivoire nga gis fa fee yaakaar naa ni football ba nam fa demee ak biis yi nga xam ne ñëpp am nañ ko boo gis ci Côte d'Ivoire ci Ligue 1 ba gars yi yëkkati boo xam ne état beeg ministre des sports ñoo dajale li am kenn ko ci nañu wutal la bis boo xam ne booy football championnat moom ngay dox di gundaandaat mu nekk biis yoo xam ne yu rafet la notre cher président maa ngi lay yóbbante nga jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci football bi bu ko defee benn équipe bu mu ci mën doon nekk Ligue mu am biis boo xam ni bis bu tàng jépp la teyit rafet car masha Allah